sœur Virginie ñu leen koy wat bu baax di ko jaale wa Marodi di ko jaale tamit ay mbokam famem di ko jaale wa Sénégal yëpp waye dañoo daje kenn ko xamanteni mën na ni proche la woon mu nekkon ak mom ci série Virginie ñu nan ko ñaga ñu nan ko mbeur tam nekkon mbeur tamit ci série bi nekkon ak mom mel na ko jegelawul balaa boobu rek dañ koy bàyyi mu nuyu mbokki internet yi nga xam ñoom ñokoy koy ñaga ñu ngi lay bàyyi nga nuyu. ñu nuyu mbokk internet yëpp di leen nuyu yeen bu baax baax di jale képp ku bëgg momo ak képp ku bokk ak mom ñu ngi lay jale bu baax baax waaw di nuyu sama waa koñ aussi di nuyu sama yaay aussi ndaga tay dañu xey rek ñun ñëpp comme niñ ko gisee jotando information muy gënuk aduna àdduna ki nga xamni modi momo ñi ngi la koy jaale yow mi nga xamni frère frère am nga waye information nan la diké nan nga yëgé gënuk aduna ki nga xamni modi momo sa sa frère wa metti rek metti rek parce que lepp ñoo ko doon defandoo ah. ba ci série bi ñu bokk dañ dem benn moment seri booleetuñu deret moo ñu boole parce que lépp ñoo ko doon defandoo lu ma métti da ko doon métti lu ko métti daf ma daan métti ñu nekk ndawoon somoon comme daaw heure bi daaw 22 août daaw comme heure bi ma taxaw di wax yow ñu ngi woon somoon ku ko ne woon 22 août 2022 du la fekk ci kaw suuf mu ne la déedéet waaw ñu doon defandoo lépp ek dundandoo lépp somoon bokkandoo lépp ñun ñëpp ñu bokk ndey ak tey dem bi daf ñu métti trop trop trop. nan nga yëgee information bi tey. waaw ah, information bi comme ni ko ñëpp yëgee rek ci groupe acteurs yi laa dugg rek yëg ko téléphone après sama téléphone sonné ma doog a xam ne dëgg la parce que bi ma gisee stade yi gaw ma ko woon bi sama téléphone sonné waa Marodi woo ma ñi ma bokkal série bi woo ma ci laa xam ne affaire dëgg la waaw. ci euh, wax ji nga xam ne moom lañ dégg ñun ñëpp yëg nañ ni dafa feebaroon feebar bi nga xam ne moo di drépano moom moo ko yóbbu est-ce que yëgoon nga feebar bi wala rek feebaru ñaari fan la rek. mais du feebar bu tax ñuy wax feebar xam nga ku ne day wax rek mais ñoom ñëpp xamuñu nu mu demee. Hmm. waaw ñi ci xam nu mu demee dañ leen di compter waaw. kon nan la demee. ah ni mu demee mooy feebar sénégalais feebar ñaari fan ñetteelu fan bi mooy suñu borom def li war mooy li ko dal ni tey. kan nga kañ nga gëj ban moment wala ban jour nga gëj a dégganteeg moomu. barki démb rek déggante nañ WhatsApp ñuy préparer suñu saison 3 barki démb rek ci mujj. waaw yéen a ngi woon ci wàccaay saison 3. waaw ñu ngi préparé ah. préparé mais gis nga saa ni mu demee saa yi waxu préparé waxatuñ ko waaw. Ah. tey jii est-ce que du ngeen doon toog leen di wax ne dafa am benn feebar bu nekk ci biir moom. loolu moom xam rek gën a xam waaw mooy loolu. feebar bi ce que du tey nga koy doog a yëg yow sax. waaw mën naa ma mën naa ma rek en tout lepp ma marqué ci mom parce que dundando nañ lepp nima la ko suñu saison 1 ou suñu saison 2 dañ dem ba bok nday ak bay dem Somone nek pendant des jours di defando lepp di di yewando di lekando di nanando un théâtre frère moñu bolé mais pas ay cinéma yi ni dañu yag wax que ni ko wax rek dafa la dafa won dafa Virginie bam daj ñepp a ñepp mais mom da du tooñ du dugg lu yoonam nekkul du wax lu yoonam nekkul non non. kon que doon ni mu meloon ci série bi noonu la mel dëgg-dëgg jullite bañ a tooñ yam ci yam ci place am. du tooñ kook tooñam entre ñun la suñu biir entre acteur te ay acteur ay comédien fu ñu nekk waxtaan ruubee dina fa am waaw entre ñun la bu génnee ci mbéy mi du xool kenn waaw. bañ la bañ la ba nga yëgee nouvelle bi am na benn image am takk bu ñëw ci sa bopp ban image nga fàttaliku boo xamante ni ba léegi doo ko fàtte. mooy imagine comment depuis mon ba suis image depuis saison un ba ben saison 2, ak qui nous disent de bi depuis pour sama sommes ngeen Je échangé. yi ñu suis suis suñu préparation saison 3, je barki rek ñu ngi whatsapp di ci wax préparer di Je suis et tout waaw. la non parce que boobu déggoo ma la feebaru sénégalais la feebaru jour la affaire bi taxul ñu naan feebar parce que sonalu ko jàpp ko waaw. ñu gis ne yàqante bëri na ci li nga xam ne moo di aar bi tey jii moomoo mii nii nax nañu doon xale bu ndaw boo amee loo xam ne yaa ngi koy dénk comme message lancé ko sa mbokk acteurs yi ak nga xam ne tey jii ñoo ñu bàyyi xel lay doon. waaw affaire yi gaw ma ne yàqante am na ci ah, parce que suñu borom moo ñëw rek ay cadre de parce que koo jurul jëndoo ko carrément munoo def ci moom dara quoi pour man. suñu borom moo ñëw ekat bësam bësu dee rek moo dul raté quoi mais bësu lépp mun na raté mais bësu dee du raté waaw. jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax ci ci répondre bi nga xam ne répondre nga ko suñu ay question jërëjëf. Dakar instant. loo wax ci dakaar instant. Dakar instant nee naa ne moom ngeen di seetaan à l'instant. bu duggee YouTube tapé Dakar. ñu yaakaar ne Dakar leneen ngay def nga bind instant ndax instant bi nga toll da nga ko war a dund ndax dañ ne le passé c'est le passé le futur n'est pas encore venu donc vivons l'instant fi nga toll dund ko du jour au jour Dakar instant yéen a ngi ci instant bi di yëngal instant bi te xam naa ne instant bi du ngeen ci yem ndax instant bii ni dafa nekk instant boo xam ne day dem ba mujj gi day nekk instantané instant bi sa loxo boo xam ne nii si écran bi léegi nii danga may danga may gaañ ay xoolal may wax muy fooyee ba liggéey ba si sur Dakar instant